Mon fils la am kër sax ses ses enfants sont là moom tam yàlla na yàlla yeesal yërmande ci mon. tey mon mot dugal ne ma baba comme football nga ba pare Ça après football da nga war a ñëw dirigeant loolu moo ma indil ma que dirigeant. N'est nga dirigeant nekkoon naa dirigeant au ethics, parce que ñu que président yëpp fii lañ ma fekk au passage tel que président Abdoul Aziz Gueye mon tamit gaañu moom moo njëkk nekk président bu mu retraité joge fi euh, sa deex baax moom tamit gaañu na moom tamit yàlla na ko yàlla yërëm moom tamit moom moo nekk deuxième président léegi sa deex ba bu mu fi jógee léegi amoon na kuñ naan Songo Matar Ndiaye moom fédération lan kii woon mais moom nekkul woon ICS nekkul woon ICS loolu moom moo tax année boobu ñun bu ñuy football euh, championnat amuñu woon budget parce que xam nga ICS tamit du nangu ku nga xam ne liggéeyul ci société bi mu koy dénk ay millions xam naa ne loolu moom moo taxoon waaw moom moo nekk benn président moom moo nekk benn président bu nga xam ne liggéeyul woon ICS te benn année la def après dem bu mu demee bu mu demee la musa Moussa euh, Diagne ñëw Moussa Diagne bu mu demee Momat Ba voilà après la Momat Ba ñëw léegi Momat Ba bu mu bu mu demee bu mu demee le euh, Babacar Sow daal di ñëw nekk président noonu la demee loolu moom mooy histoire. mais dem lu ko waral seen dañuy retraité ñu libéré wala éthique dafa amoon durée de mandat pour les présidents. bon président président amoon na durée de mandat parce que boo boo boo defee euh, boo defee deux ans boo defee deux ans. après dañuy woote assemblée général bu ñu wootee assemblée générale bu fekkee ne lañ lay reconduire ñu reconduire la bu fekkee ne dafay am keneen kuy postuler ngeen yëkkati ñu def kii commité directeur noonu la demee woon waaw noonu lañ doon falee président yi daal. waaw yow mi nekkoon dirigeant lu lu xew ba nga jé nekkatoo dirigeant ETICS. bon euh, euh, euh, lu ma la mun a wax daal année bu may dem. j'étais le directeur sportif euh, am na entraîneur bu naan Sele. Sele du xam ngeen ko. Sele man maa ko dem recruter indi ko man maa ko dem jëli ji Thiès indi ko waaw j'étais le directeur sportif. mais xam nga équipe euh, dafa am nuñ koy tabaxee club bu ma demee ba gis yu nga xam ne neexuma te. instant boobu mënu mu ko woon dindi loolu moom moo tax ma préféré jékki-jékki daal di retiré wu quoi en douce daal di dem parce que daal vraiment euh, euh, dafa am yu nga xam ne sous réserve du lépp la ñuy wax mais dama gis yu nga xam ne xamoon naa ne équipe bi équipe buy buy dox buy buy doxee noonu fu ñu bugg du fa du fa yegg. gestion gi la won voilà gestion waaw gestion beeg yëpp c'était était euh, euh, vraiment affaire yi daal bon mënu mu ko expliquer daal mënu mu ko expliquer parce que xam nga du lepp ngay wax waaw waaw sous réserve daal waaw mais bu ma demee ba gis lu ma naqari te xam naa ne lii mënu mu ko faj moom moo tax j'ai préféré me retirer parce que dama doon euh, da ngay tardeel sa bopp daal. parce que man dafa am ambition yu ma amoon ci ethics

en tout cas dal, bu 2006 ou 2007 année je ne me rappelle plus hein, mais je sais que c'est 2006 2007 parce que moi, année nga deux ans successifs. parce que le football nañu pas fii ñun accéder en première division gars yi gagné ñu par tapis vert ta tapis vert bobu dañu ñëw fekk suñu ben match bu nga xamné dañ ko gagné ñu daal di ko dindi waaw affaire wu xam nga affaire u Sénégal euh, instant bobu Mamadou Ba était le président dañu waroon yek dañu waroon yek mais ñëpp xam nañ ne trucage la waaw ñu ñëwaat deuxième année bi ñu nag stade de Mbour waaw ñuy xëccoo encore waaw monté voilà waaw ci le euh, après année boobu daal après année boobu bon bu ma gisee daal xool def samay analyse ak yooyu xam ga am na yenn yoo xam ne doo ko mun a boo boo fa nekkee doo ko mun a xeex léegi après ci laa retiré wu daal di daal di